يونت بني الكيس من دان نفسه كموس موي كي نوت بكنا وعمل لما بعد الموت تجف غير الله والاحمق نك من اتبع نفسه وهواها وتمنى الامان كيغا خم دا دوف نك موي كيغا خم ني داي توف توب بكنا با نوبي لب لوني بغ لوني ام مو جاب ني وار نكو كون نيبت موي دي بغ رك اندك توك دي خولي ايتي موي ليغا بغ غني نيو moo tax mébét yu gudd ak xër ci àdduna yonent bi da koy faral di boole di wax ni ñeent ngi yoo xam ni ak texee di lay teg muy wow bët nit ki dem ba ba bëtam wow dootul dara mënatu génne ak rankoñam loolu nee na ak texee di la ci nit ki naka noonu xol bu wow naka noonu mébét yu gudd ak xër ci àdduna yëpp nee na ak texee di lay teg ci nit ki day sonal nit ki waaye nag ñaari mbir ngi mat xam ne àdduna ak alaxira lan mooy àdduna ak lan mooy alaxira adduna aw yoon la wu ñuy romb di jàll alaaxira mooy dëkkuwaay bi nga xamante ni mooy saxwaay ba fa la nit ñi jëm jullit dañuy bëgg rek xam-xam bépp mu tënk ko xam ni adduna ab jaarukaay la alaaxira fa la jëm mooy dëkkuwaay boo defee nag ci kaw noonu mu xamee ni fii aw yoon la fee ab dëkkuwaay la muy jëfe noonu jëf lu toll ni la ngay jëf ci aw yoon woo romb di jàll lu toll ni li nga soxla ca dëkk bee nga jëm nga nga di ko liggéey pour mandat ko mu dem foofu waaye nag liggéey ngir àdduna ak liggéey ngir alaaxir yi daa ma tax xàmmee nag tuuti ndax liggéeyu àdduna mooy buñ ne àdduna mooy commerce ndax mooy bay ndax mooy sàmm ndax mooy jàng ndax mooy nangam ndax loolu mooy liggéeyu àdduna buñ ne liggéeyu alaaxir ñu ne kon mooy dem kàbbar di julli di woor di jàng alxuraan yor doolu xasida di sikar ndax loolu mooy jëfi alaaxira ñu ne déedéet jëfi jëf ji ngay sàkku àdduna même jëf ji ci mooy yoon wi lay yóbbu ci alaaxira amut ñaari yoon amut yoon woo xam di naan yoon wee moo jëm ci àdduna yoon wee moo jëm ci alaxira yoon wi moo jëm ci àdduna moo jëm ci alaxira kii dafa gàttal ay itam yemale ko fii kii guddal ay itam yemale jëmale ko fële waaye du duñ duñ ne rek àdduna nga ni kon ba ci xëy dem ci marché ba di liggéeyi sax mbirum àdduna la déedéet bul jàpp mbirum àdduna la jàppal ne yoon woowu ngay wutee àdduna ci la ñuy wutee yàlla demal ca marché ba commercial demal nga bay demal nga sàmmi fexeel ba am alal fexeel ba am xam-xam ba noppi nag sa hëdëf na doon ngërëmul yàlla mooy loolu boo ko fabee na nga ko wut wutee ko ngërëmul yàlla